ñun taalibe Muhammad lañu mooy suñu modèle amul werante moom wax na leen ni dafay fekk benn détail mu fexe ba civilisation asamaan mën ci sukkandiku xam nga temps yi alquran di wàcc ci moom moom bi alquran laata tàmbale wàcc ci moom am na ñetti at yuñ koy jàngal yëg yëg te alquran commencé gul wàcc waaye ñu koy jàngal yëg parce que bu ñu ko deful noonu bu ñu ko bettee mu gaañ ko ñu am ñetti at léeg mu am lu mu yëg lu ko xaw tiital mu jéem a ko interpréter seet ba xam loolu ba ruuxam miin ko xolam miin ko yaramam miin ko am na benn bés bi alquran commencé wàcc nga xam ne léegi jeex na alquran na koy jàngal moo ko naan jaaral fii moo ko naan defal lii yëg-yëg bi muy am bu aaye dee dikk mu am yëg-yëg ba te aaye bi dikkul mu ne nag il y a un blocage quelque part mu geestu yem ci jigéen ji fekk jigéen ji deful musor ci boppam mu ne ko jëlal sa musor teg ci sa bopp mu jël musóoram teg ci boppam rek blocage bi nekk Euh, actuellement mi ngi jur coow lu bare parce que ñi ko bëgg interpréter ci cadre euh, madahib yi Eh, wax nañ ci lu nekk sax am ñu naan kaw kawaru jigéen dafa dafa rey malaak wante pour gàttal eh, kiy indi aaye bi gan la te jigéen jigéen malakun la min malaikati rahma c'est l'ange de la miséricorde kooku malaul axla yëpp d'accord nañ ci waxuma nag digganteem ak doomu bàjjanam te muy góor jigéen góor doomu bàjjanam la bu tayee góor gi ni ko seytaane si mënu ko yow itam mbaam mi kooku c'est normal mais nuñ ko mën a interpréter moo di jigéen kawaram ci taaram la bokk te lépp luy taaram bu dul papaam bu dul càmmiñam bu dul jëkkëram waru ko gis kooku noonu rekk la mais ci charte fekk vertu yi ñoo moomee waaye su fekkee ni vertu yi moome wuñu tendance yi ñoo moomee il faut faire attention bañ a bareel commentaire moomuloo nit moomuloo nit rawatina bu fekkee ni da ko bëgg commenter ci façon bu nga xamni bu tendancieuse lay doon baaxu mais du tee détail la bu nga xam ni euh, euh, civilisation asamaan sukkandiku na ci euh, daf koy faral di def eh moom de pexe amul ndax itam eh, xam nga nit nattoom ci kaw suuf bokk na ci li koy mëna a dimbale ba mu fàtte ko ñu wàcceel ko jigéen li taskunu ilayha parce que yàlla mi mi xam jawhar te bind ko xam màdd te bind ko xam na ni nit ci kaw suuf ci nattu la nekk moo ko dimbale rekk ba nattu bi woyof te li mu ko dimbalee pour nattu bi woyof jigéen ca la bokk mais nattu la waaye nag def na lu nekk pour nattu bi woyof parce que jëwhër bi la muur ban te ban normalement ñu ngi ko war a dundalee fumée poupe fas mais fexe na ba ban bi ci nit ñu di ko dundale biftek di ko wutal njaru soow yépp pour woyofalal ko nattoom bi ci exil bi faf nag wàcceel ko jigéen mu nekk malakum min malaayikati rahma xamuloo ni jigéen ji ngay xëy di xuloog moom ba jant so am na fu mu la féete xamuloon looloo tax looloo tax euh, sunu sunu borom kenn dafa xamul noo koy taggee waaye daal ku yiw la waaw ku yiw la ndax exilé nit ba noppi mu jaral la yii yëpp nga defal ko ko pour mu bañ a yëg exil bi ba ba moo dellu si nga soog koy delloo ca état jawhariyam ban bi nga muur nit bu la jaralee defaral ko bi biftek wala ceebi jën bés boo dindee ban bi wéetoog jawariya bi kon loo koy defal loolu kenn mënu ko natt loolu kenn mënu ko natt loolu kenn mënu ko natt